li ci yenn kaay yi li ci yenn yi El Hadji Ousseynou Elhadji Ousseynou Ndiaye dal leenu jàmm ci xibaar yéeni kay jamono ci daanaka bu yees bii nga xam ne daal moom la taxawaloon ci réewum Sénégal la yi nga xam ne daal su mën ko Sud Quotidien di ñu xamal ne kay gannaaw jëm nag maanaam ci la nekk maanaam daal fast track ji nga xam ne daal ñooy mi Macky li nga xam ne nag moo ko ñor muy dépense yi nga xam ne daal nguurug Sénégal dañu koy jëfandikoo maanaam daal ñi nga xam ne daal ñoo nekk ci gouvernement bi dépense yi nga xam ne daal da koo bëgg a moom la doon joxe njiitu réew mi jamono ji nag la mu bëgg moo di dindi ko fi ba mu seet wecc ci àndi fi yeneen yu bees li ko waral moo di njuñ njaaj ak yeneen ak yi nga xam ne daal moo amoon ci mbir moomee loolee tax na daal njiitu réew mi président Macky Sall jox na ndigal ki nga xam ne nag mooy la jëwriñ yi nga xam ne daal moo fi nekk ñu daal di koy dindi ba set andi fi yeneen yu bees vox populi du ñu xamal ne démb Sénégal boulanger dañu doon grève démb yéen bi dañu xamal ne ñoom kay ñetti fan yi démb la ñu tàmbali seen grève di ñu xamal ne kay fa lañ jëmale yéen bi lépp loo ndax daanaka daal démb kay grève bi daanaka yaatu woon na lool ci réewum Sénégal ndax téeméer boo jël juróom-ñett fukk juróom-ñett fukk ña nga doon doxal grève ba na mu waree directeur fa dañoo xamal ne kay jafe jafe suuf moo fa am yéene bi dañoo xamal ne askan bi nga xam ne nag ñoo dëkkee foofee ña yëkkati seen kàddu di xam ne daal jamono ji loolee daal mënatuñu ko muñ ndax heure bu ñu xëyee gis ay nit ñoo xam ne feneen la ñuy di tibb seen dina am seen suuf soosee nga xam ne seeni maam ñoo leen ko fa bàyyi woon koy daaneeli lépp loo xam ne nag jëm na ci wàllu làmb yéene kaay bi dafa dalal li xam ne nag moo tafaatin moom tafaatin di xamal ne Ama Baldé Gris Bordeaux ak daal maanaam daal ay ñoo ay mbër la ñoo xam ne buñ leen ko joxee combat ba du yàgg